Sénégal dafa am ay kàddu yu mu yëkkate woon ne dina ci bokk bu baax a baax réconcilier euh, le Sénégal avec son peuple mais également wàññi tamit li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe yi askan bi mm-hmm. di yëkk mu bokk également tamit ci lu ñu diggoon askan bi ci jamonoy campagne électorale donc mu mel na lu ñu mel ñoom ñu ngi ci tànk yooyee puisque euh, jël nañu ay mesures ngir wàññi li nga xamante ni moom moo di euh, denrée yi ni Sénégal yi di gën a moo xam suukar bi mburu bi ceeb mais na ci wàllu mburu bi moom dafa poser problème naam nag l' association des boulangers du Sénégal mm-hmm. waxoon nañ ñoom dañu opposé ci boobu lay dogal mais plus tard dañoo gis li nga xamante ne maanaam ñooy defar li nga xamante ni moo di farine bi ñuy defaree mburu bi ni daal ñoom finalement woon ak ko a jaay fu mu ne duñ ca génn te état bu Sénégal la leen gungee néew na ñoom ci seen gisin donc nag euh, sax ñu menacé woon ni ci fan yi ñuy jëm dinañ li nga xamante moo di production farine bi te xam nga lu mel buñ ko arrêté woon moom daanaka ci fan jëm ya mburu du fi am euh, tey nag revenir nañ ci seen décision mm-hmm. ban gis-gis nga ci am major non je pense qu'ils ont négocié parce que euh, stock bi buy ñëw euh, dañ koy jënd avec le prix de revient quoi mooy prix de revient mooy boo ko jëndee au producteur wala fournisseur y a la manutention et de la manutention maintenant tout compris quoi ba mu ñëw ci usine bi ngay defaree farine bi. Mm-hmm. léegi nga defar farine bi le prix de revient bi quoi. Mm-hmm. mooy électricité yëpp et puis bi ñu jot avant que état bi di subventionné parce que état bi dafa mel dafa war a rab ramener de six mille à quatre mille quoi moom la ñu waxtaanee woon donc leen état bi proposé loolu c' dans la donnage mooy mooy ci prix bi nga xam ne dañ ko war a wàññi donc léegi stock yi fa nekk dañ koy épuiser léegi nag bu stock bu bees bi ñëwee nag ñu jël ko en compte dañ koy def noonu la ñuy def. Mhm. mais si sinon chaque meunier il déclare ce en stock. Mhm. léegi ñu boole ko ci projet bi. Mhm. rétroactivement rembourser leen. comprends nga. Mhm. parce que la bas la procédure sera rétroactive. Mhm. parce que boo bëggee mu wàññil la vingt cinq vingt cinq francs bu aboutir ci boulangerie bi donc la le le le prix du sac de farine au vu de de la douane des taxes et li nga ci waroon wàññi comme da ngay wàññi en en en en amont mais tu seras obligé de de de diminuer en aval. Mhm. le taxe pour lequel on la péréquation et l'stabilisation parce que il faut péréquation il faut répondre la norme après nga ñëw ci prix ba bëgg ñu stabiliser quoi donc ñoom bu ñu waxtaanee léegi l'État va les compenser c'est sûr qu'ils ont été compensés parce que suñu leen compensé wul duñ mën a jënd farine duñ mën a jaay farine. nee nañ mise en demeure bi mais mise en demeure mënoo koo jox kuy jaay parce que sinon day arrêté liggéey mise en demeure bi mooy quoi. nit ki bu jaayee bu jaayee perte pendant deux jours trois jours dañuy arrêté loolu mënut a. sax le ministre du commerce Serigne Gueye a décidé de fouiller certaines pratiques commerciales des producteurs de farine. de peut-être loolu moo euh, va entraver le travail et les Sénégalais n'auront pas de pain et le pain est sine qua non. Mhm. ce que je pense. Mhm. mooy de de avec eux le prix de la farine. Mhm. de voir les taxes en douane en fiscalité. et de voir la l'électricité en ce qui les concerne mm-hmm. mm-hmm. ah pour que ñoom ñu mën ko jaay parce que y a des experts meuniers y a des gens qui comprennent mm-hmm. si on sait le prix de revient de la du sac de farine et puis on sait le prix de revient euh, vendu aux et on sait le prix de revient des boulangers et qu'est-ce qu'ils doivent gagner parce que le boulanger s'il ne gagne pas pour payer ses employés pour payer le courant payer les taxes la fiscalité ça pose problème à vendre moins cher loolu jarul sax ñu ciy dugg. Mm-hmm. parce que c'est pas c'est pas commercial et c'est pas orthodoxe. à tout prix ils veulent diminuer ils ont diminué il paraît que topp nañ leen ci vingt cinq au lieu de quinze francs ils nous ont amené vingt cinq c'est c'est très bon c'est c'est mais nañ faire de sorte qu'il n'y ait pas la rupture. parce que aussi wàññi ba pare gars yi arrêté pain duñ jaayati mais ça revient à zéro. on n'aura plus de pain. Mm-hmm. moo tax ay mise en demeure c'est quand tu as normé la chose tu as une précaution tu as stabilisé et là tu ok vous êtes d'accord moo tax am ñu jàpp ni ku ci mel le président Bougane que ni dañoo waroon privilégier concertation yi est-ce que da nga gëm ni maanaam dañoo dañoo dañoo jël ndogal ba noppi doogoo toog gën a waxtaan ak ñoom waaw déet moo tax yëf yi bloqué wu non dañoo proposé woon non premier jour ils ont dit que nous avons décidé de diminuer 15 francs sur la baguette de pain. mais amuñu ci woon consensus. mais mais eh nous allons consulter les ils ont consulté il paraît les gens après ils les ont consultés. oui mais ils ont consulté mais amaguñu ci woon consensus. waaw mais meññee seet bopp ñoom ñooy wax li am ak dëgg yi xanaa ñoom amuñu fayda les meññee laa ñoom ñooy jaay sen pain ñoo jën seen pain man j'achète à 150 francs. war war a am cent vingt euh, war soixante quinze bu dee bu ma ko defee du ma am benn bis du ma man le man kon mënatuma liggéey nga taxaw je me dis par là laata ñu doon annoncé li nga xamante ni moo di njëg yu bees yi ndax jàppoo waroon nañu war a mun a am consensus de ce fait du am problème bi ñu am tey non ils ont étudié parce que y a le ministère du commerce xam nga le riz là il arrive les produits là arrivent à CAF Dakar la plupart du temps ce qu'on indi ba ci bi Gorée nga jël ko yow fay sa manutention fay sa yëpp en tant que Euh, commerçant grossiste yi quoi ngand yi noonu lay ñëwee su ñëwee nag bi am na ci notion aussi attention l' état peut faire l' expertise et évaluer comment le prix de revient du du du kilo de riz au détail ah parce que c' est trois cent cinquante mille parce que waxoon naa la un jour man amoon naa sama benn goro la on devait amener du riz ici mais ça ne nous arrange pas parce que le CAF Dakar bi ko gars jël trois cent cinquante mille doo ci génn tonnes et puis tu trois mille tonnes doo ci génn donc c' trop compliqué Mais l'État ne peut pas faire des calculs pour que les, si les gens n'ont pas de bénéfices, ils ne payent pas leurs employés, mmh. ils pas les impôts autres. Maintenant, Ribi, l'effort que le Sénégal a fait depuis Macky Sall, c'est de stabiliser le prix. Déjà, c'était déjà bon parce que mi ngi yokk ci yeneen réew la farine là mi ngi yokk gravement dans les autres pays donc si on diminue on a stabilisé on a diminué donc on a diminué deux fois maintenant nag ñun nañ fexe ba cat bañ cee dugg. Mhm. parce que diminution bi ñu def nii mais dans deux, dans une semaine deux semaines la farine là c'est en bourse maintenant en Égypte le pain est sorti à quatre fois et puis gis nga la consommation en Afrique au mondial dafa am problème xam nga dafa am problème parce que yà a des guerres en Palestine et en Ukraine et quand il y a la nourriture et l'alimentation n'est plus diversifiée parce que les gens ne produisent ay carottes ak navets tout le monde mange de la farine et des pâtes mooy ceeb farine ndax banque mondiale par la FAO ne donne que ça maintenant imagine koo xam ne danaan danaan lekk ay carottes navets ganaar yàpp tout ça mu yeewu dootu ci lekk dara dootu ci reere dara du ci ndekkee dara il ne mange que la consommation mondiale va va va va impacter sur la productivité et surtout que y la production d'abord la production est déjà fait donc cette année le déficit alimentaire day am Gaza gis nga famine baa ngi commencer mm. gisoo Gaza les enfants là sont déshydratés avec des kwashior corps qui attestent que dañoo jeex dañoo dem donc Sénégal na on n'a qu'à s'attendre à ce que la farine là augmente encore ah waxuma riz dans ce cas là mais l'État a fait hein tu sais les, les fonctionnaires des ministères commerce depuis euh, le régime de Macky Sall ont pu stabiliser les prix en en mettant en place benn dispositif bu nekk depuis le port la douane et tout le monde et les fiscalités de nature que les importateurs quand même arriver à gagner quelque chose. Oui, mais le problème sur Macky c'était souvent c'est-à-dire ñoom il parvenait pas quand même à maintenir li nga xamante ni moom moo di. non c'est c'était non la farine à une baisse. non la farine non non le pain le pain était stabilisé. le pain avec avec quinze milliards de subventions c'est c'est ñii fi mu dana dem subvention aussi bu jege loolu mais xam nga diminution doo ko xool ci benn kër tu le regardes sur l'impact sur la pauvreté. xam nga aussi benn kër bu dee par jour vous économisez cinq cent francs pas maison mais foyer la ñuy wax xam nga c'est un foyer mooy feu marmite bi ñuy taal xam nga benn benn kër day nekk immeuble vingt vingt appartements c'est vingt foyers est-ce que yaa ngi comprendre ma vingt marmite ñoo fay tàkk donc si tu regardes au Sénégal je donne un exemple nous avons cinq cent mille cinq cinq cent francs par jour d'économie je donne un exemple et que tu multiplies ça par par par un million de foyers ah à peu près ça te fait 500 millions le jour ah ce n'est-ce pas chaque 10 jours tu as, tu as 5 le mois tu as 15 milliards d'économies sur l'impact de lutte contre la pauvreté si tu prends 15 milliards en 10 mois tu as 150 milliards donc tu as 200 milliards de diminution de, de la pauvreté donc diminution noonu la ñuy calculer ce qu'on appelle euh, la vie chère quoi c'est l'impact de lutte sur la pauvreté parce que comme une mutualisation qu'on qu'on est en train de faire pour que cet argent revienne, que ces 2 milliards, c'est comme si tu restais toute l'année, tu prends 200 milliards et tu distribues ça aux populations. C'est non ngay xool affaire mais doo xool ci kër. mais comment faire pour ñu ñu mën a maintenir li nga xamante ni moo di bés bi njëg bi fixe. non attendez il faut pas qu'on trop exigeant parce que si la farine là augmente l'État ne pourra rien du tout sinon on arrête d'avoir du pain ah qu'on soit clair gis nga le jour que farine bi yéegaat mais par force le pain bi mais quel budget la koy defee quelle recette nous nous on fonctionne avec des budgets de, de l'argent attendu du budget attendu mais si un état connaît à subventionner non ne peut c'est à nous de voir comment on fait mais mais il n'est pas possible si le pain là mhm. si la le kilo le le le euh, ça augmente en bourse là depuis l'Ukraine et en Union soviétique les pays la Pologne et autres là qui produisent la farine là mhm. su yokkee day yokk ah. mhm. par force la yokk fii donc donc ñun ñun ñooy jéem a xool comment faire xaw man gis naa xale yi di lekk genn wàllu miche man ñun amuñu woon habitude boobu bi ñuy xale ñun bi ñuy xale miche pain quatre personnes a koy lekk ñun ba man ba sama pap bi ñu éduqué ba tey man ba tey man ba tey miche mburu bu à lañ koy lekk mais on est mais mais gis suñ koy ñu jënd juróomi miche pain par jour mais mais bu dee ngoon nga jënd muy dix miche mais tant pis de miche bu ñu la ko wàññi mais mburu mi kese da am cinq cent francs xam a diminution ci bopp di critiqué voilà loolu nag mooy problème sénégalais ni ñuy togg di lekk jigéen dañuy ti boolu ceeb mm-hmm. di lekk di macaat di lekk ay kilo kilo ceeb mm-hmm. mais mais je vous dis que dana egg moment yoo xam ne un mm-hmm. état africain ici dans les pays tiers-mondistes si ça continue comme ça ne pourra plus supporter l'inflation mënta nekk parce que nañ waxante dëkk rek farine bi mais li ci Macky Sall def ñi aussi di ko ci jéem a def kenn mënu koo romb tôt ou tard ça va flamber dana flamber par aw par B parce que crise bi en Ukraine on cultive plus comme il le faut il faut s'attendre que xam nga ger bi def na un an. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. mais attendez attendez la suite vous allez voir mais pain bi day yéeg kenn mënu ko téye pain bi la farine la day yéeg kenn mënu ko téye donc li ce qu'ils ont diminué les meuniers là. Mm-hmm. ils n'ont qu'à aller dialoguer avec l'État. mais l'État xam na ñoom état bi. bu xamee ne meuniers yi n'ont rien gagné. mais il va les di da di. da di baal fiscalité ak impôts mhm. bu boobaa aussi Sénélec du leen ah. on va donner des instructions à la Sénélec de ne pas mhm. parce que mënuñu koo fay dañ leen di wàññil. Mhm. ah. état bi jël ko en compte Sénélec da parce que yow état a des mais comme comme cet état là aussi dañ leen a parce que il faut ñu wàññi nag il faut ñu wàññi xam nga promesse promesse égale promesse. nag dans cas d'espèce il faut ñu wàññi. le moom au port ça le dédouanement est haut mais tu exonères et tu, tu pourras vendre au tu voudras. D'accord. mais mais importateurs yi ne pensent jamais que dañuy perte. alors alors euh, affecté à à New Delhi tout récemment ba mu jugoon sax coow moom le général euh, Souleymane Kandé euh, tey ñëwaat na au devant de la scène sur le devant de la scène moom l'ancien chef déjà d'état-major de l'armée de terre sénégalaise est nommé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron Euh, comment ça s'explique Major sachant que ni moom fii la doon servir et que tout récemment lañ ko nommé euh, donte ni nag mm-hmm. nomination affectation boobu suscité woon na un tout coow parce que am ñu nga xamante ni jotoon nañ ci am ay jafe-jafe ak yoon tey ñu gis France di ko honoré non France euh, c'est dans la diplomatie militaire et la relation et la coopération moom il gère une armée de terre c'est l'armée la plus puissante mooy commando para infanterie yëpp moom la ah mm-hmm. tout ce qui est euh, force guerrière yuy mën a défendre bi c'est lui donc il a beaucoup manœuvré avec les Français dans le cadre de la coopération ils ont trop manœuvré ils ont trop échangé des expériences quoi donc euh, comme il a fait avec les Allemands et les Américains parce que ñu koy wàccee vingt quatre heures avant il a vous avez vu les Allemands xaw ma Américains avec qui il a fait une grande manœuvre pour pour pour conjuguer leurs forces parce que en cas d'attaque par exemple du terrorisme les gens sont sollicités les grandes puissances là sont sollicitées donc lui c'est son c'est son acolyte son correspondant français qui a fait un rapport et qui a demandé qu'on le décore pour service rendu à la France parce qu'il a coopéré avec eux honnêtement et efficacement et leur a permis eux aussi d'augmenter leur expérience dans les pays du Sahel loolu la demee mais Macron n'a pas le temps de nous régler ay ku ko wàccee ku ko wàccewul c'est pas son problème parce que je pense que France. parce que am na parce expliquer xam nga sëñ bi euh, madame. man xam ñooñu xam naa leen seen jikko bu baax xam naa la ñuy defee ñooñu bu la doon mere wala jógal la dañ lay dañ lay attaquer directement dañ lay attaquer directement je te jure gis nga boo weddee li may laaj ko Thomas Sankara gis nga bis bu ñu amoon ak yow problème dañ ko régler donc ñoom ils n'ont pas de problème avec nous et il faut pas qu'on en crée Kandé est de de parce que le gars a bien libellé que à l'aube ou à l'orée de ton départ de l'état-major de de de l'armée de terre nouveau kii woon c'est ça même ñun moom bu ñëwoon ci ñun Sénégal Kandé day def rapport demander au président pour ñu décorer ko en vue de la coopération et ça c'est la diplomatie militaire mais bu ñu ko transposer naan way Kandé dafa dang Ousmane Sonko da ko rappelé ko nangam nangam il se parce que la France su du France ñu jógaloon dañuy fexel ah oui que ça soit très clair mënuñu ko jàppee non pas du tout du defante France du defanteeg ñun bu doon defanteeg ñun kenn du fi fanaan France ñu man nag nañ waxante dëgg nañ moytu coow ak indi problème Macron n'a pas notre temps. ah waaye ñun léegi France dañuy neexal de. mais neexal bi c'est normal parce que dañu am suñuy ressources naturelles. non ressources yi ñu am yëpp c'est des ressources relatives. Sénégal yi ñuy wax ressources yi ku ci jàngewul liggéeyoo di xaar ressource doo dund. ressources yi ñuy wax ni du ressources yi ñu mën a dundal sur le plan individuel c'est des ressources yoo xam ne ça augmente notre budget notre plus-value tout court. mais ku ci yaakaar da ngay toog doo jàgg doo liggéey ba yaakaar je te jure da nga mere ku loo deful dara France li ñuy dérouler ñu ngi koy dérouler et ils ont gain de cause. amuñ ci problème le président de la République est parti la bas non. Mm-hmm. il a fait de une belle coopération am na lu mu tête à euh, Macron il faut faire très attention gis nga ay ay président de la République ah. Mm-hmm. du bitim mbagg de <laughs> attendez monsieur madame gis nga gis nga bi ngay gis. Mm-hmm. la muy wax ak Macron du ko wax kenn ci gouvernement premier ministre ba ci suuf. d' accord mais daataa ñu ci loolu ba tey ñu resté ci li nga xamante ni moom moo di moom moo di ndombal nomination bi nga xamante ni moom le général Kandé am na ko foofu le général Chil euh, moom quant à lui exprime sa gratitude. envers le général Kandé pour son investissement et son dévouement durant son mandat soulignant que son leadership et son action ont renforcé la relation privilégiée. et historique entre les armées de terre c'est-à-dire l'armée française a besoin de manœuvres vous savez la guerre elle est asymétrique sooy guerre ci pays bu am neige ak yeneen pays da ngay soxla dem ci am collaboration boobu te la France est appelée à intervenir sur plusieurs fronts parce que la France est dafa am de coopération militaire avec des pays beaucoup de pays ah. sauf que le le le Mali le Niger et le Burkina Faso. Mhm. qui se sont tarimés ailleurs. Mhm. mais tous ces pays-là s'ils étaient attaqués par un jour. le Mali haute si si si c'était ça ça cassait avec la Russie mmh. des intérêts euh, ou autres de ressources naturelles mais mais ils vont les occuper dañ leen di dóor takk leen exploiter kenn du yóbbu coloniser leen point barre mais leen lu ci

mais beaucoup de Sénégalais sont décorés les on est décoré. non li ko indi non ñi ko jël non ñi ko génne événement rek lañ bëgg. mais moom mi ko jotoon il n'avait pas besoin de publier ils l'ont y'a y'a les hauts de la gendarmerie dañ koy am après bu ñu demee coopération bu ñu demee en France ñu décorer leen dañ leen décorer loolu dañ koy décorer le chef d'état-major de l'armée bu demee France dañ koy décorer. même notre président de cour suprême là bu demee sa sa correspondant bi nga am foofu moom mooy def ay rapport pour defal la teranga comprends nga en au juste mais c'est pas le cas d'Ortega ñooy toog naan wuy Kandé Sénégal bu France bu amoon soxla ci Kandé bu doon xeex ak Ousmane Sonko ci Kandé neneen lay demee du nii qu'on soit très clair je le jure neneen lay demee du nii du fi nekk ay euh, boole puy doy di ci wax duñ ko sax talba di ci wax France dafa romb niveau boobu France c'est pas un pays. fekk ba ñenn ñi jàpp ne. ñoom xam nga fi ne nii cat li ñu topp xam xam nga cat. est-ce li mu correspondant le fait que il il n'était pas d'accord avec les France dégage on fii fii loolu mooy xam nga xam nga dañ naan bu ñu la jiiñee bu ñu la jiiñee ndëmb nga yeesee ñoom origone mais lu yëngu ñu la ko mais fi ne lépp a am fi ne nii tey sax am na ñoo xam tey bu ñu yeewoon dee seen kër yi ñu ne ñoom ñoo leen rey xam nga loolooy kande n'a aucun problème un chef de l'armée de kande Kandé coup d'état wut bu doon coup d'état suñ benn suba la koy réglé ba ndax il a avec les commandos les paras qui lui sont fidèles chef militaire il ne le fait pas. affectation bi nag foofu ah, mais affectation bi dana indi polémique parce que c'est un jeune qui est en carrière dana indi polémique y rien qui augure qu'il soit muté enlevé de son poste sauf qu'il commette une faute que nous connaissons pas s'il a fait une faute que nous connaissons pas c'est tant pis ah. et pourtant dinañ lu ni ci modification yi nga xamante ni. Euh, Macky Sall bàyyi woon non le décret ko fi bàyyi parce que il fallait parce que xam nga gos bu nekkee colonel toog huit ans vraiment ça devient léthargie dix ans de colonel nga leen di nommer ay généraux leen dina envoyé attaché ak yooyu mais moom son problème c' est le poste qu'il a occupé du question ay question de fond c' est une question de forme c' est à dire un chef d' état major de l'armée de terre il est jeune il est pré pré pré pré préconçu qu'il doit être le chef d'état-major de l'armée du Sénégal alors qu'il a des ñu koy diaboliser di ko diaboliser envers de c'est un militaire il fait comme il fait l'autorité qui était là da koo bëggoon am nga ci droit parce c'est un général un général il n'est pas soumis à la discipline rigoureuse si le président de la République a besoin d'un général il peut l'appeler bien que l'armée la mais général c'est autre chose li mu ko daan woo yooyu c'est des choses de l'armée le connaissait pourquoi on l'a nommé chef d'état-major de l'armée on n'a pas nommé Kandé c'est parce que Macky Kandi da ko félicité rek en tant que bon soldat. mais mais ñun ñi man man man pour pour vous dire man nii. man mës naa enquête réussir ko mais Abdoulaye Wade may ma may ma tere te xaw ko guddi xaw ma ko bëccëg dew ma fa. Ah mais si réussir enquête. dama réussir enquête ki ma réussiral enquête bi dama wax ko lan laa ci def ak fayda ak li ma ci def mu may ma terrain sa mu may ma terrain sab ko en face jàmbaar porte ouverte yi may ma ko damay yeewu ñu woo ma ne ma demal ci euh, kii Ndiouga Sakho ma def fa may ma ko parce que enquête bee tax écoutez c'est des détails Kandé il est jeune il est général de brigade il a fait des preuves et il a développé la capacité opérationnelle de l'armée de terre l'essentiel boo koy muté loi bi permet ñu muté ko le président Diomaye a le droit de muter les euh, postes civils et militaires de tout le monde ce qu'il voudra mais dans le cas de Kandé quelqu'un, un médecin chirurgien qui est le seul à pouvoir opérer un cancer, mais on ne le remplace pas comme ça pour faire des éloges éphémères et, et à quelqu'un d'autre. loolu loolu loolu mooy problème bi dans l'armée c'est une hiérarchisation. armée ku nekk da ngay ñafe. man bi may nekk ma euh, kii ko l'appelle-t-on bi may nekk major. promotion bi ma àndaloon dama leen capote bi ma jiitu ma capote leen dem ca ba ma jiitu woon. muy trois promotions. d'accord li ma bokk la yeneen. alors si mais c'est ce qu'on cherche dans la France boobu ñu nekk foofu la desandi. wax euh, li nga xamante ni am ki sa gis-gis ci teewaay bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Faye am mu teewoon dafa ànd ak sa